réew mi 24 TV. léegi nag xam nga assemblée nationale yàlla ñu baaxe baax la ñu am ay député yoo xam ne ni ay fecckat simba la ñu woon maa la wax loolu. mag buy toog naan am na ñoo xam ne ay suppléants yoo xam ne ay xott lañ mais ñun gis nañ ci député boo xam ne da doon toog ci bu gaay toog ci ci mu gaay mbeur mu doon loo xamante ne rek Farba Ngom rek daal di nay daj dëgg ginnaaw bu mu yëkkate yooyu cadre rek ñu daal di koy tontu yi cadre mu doon loo xamante assemblée nationale bi daal di nay tàng jër ci député Benno Bokk Yaakaar yi mu mel rek fi mu toll nii kon eh, ginnaaw ba nga xamante ne rek moom mi di Farba Ngom daal di nay yëkkati yooyu la révélation mu mel ne kon digganteem ak Ama Sène moom sax eh, weddiwu ko woon rek mu mel rek moom rek moo doon toog ci nga xamante ne rek moom mooy ci mu kaayu Ama Sène rek loolu la yëkkati mu doon ay wax joo xamante ne rek ba mu ko yëkkati rek dañ ko delluwaat yeneen wax joo xam ne moom it démbam kenn fàttewu ko mu doon loo xam ne moom mi xew ci assemblée nationale saa su ne rek ñoom député yi daal mu mel ne rek dàkkasant bi rek ak xaxarante bi daal dinay tàng jéer kon loolu moo xew ci assemblée nationale ci Farba Ngom ginnaaw bañ ko fàttale démbam ci toog ci nga xam ne da doon toog ci ci mukaayu làmb